asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah ma dama del soon rek bëgg di waxtaan ak sunu mbokk yi nga xam ne États-Unis lañ nekk am nationalité wala ñu nekk États-Unis am fa njaboot wala ñu nekk États-Unis am alal ca Sénégal américain yi dañoo organiser te yàlla dogal na sunu wërsëg ñëw ba agsi ci doon des citoyens américains euh, dama leen di digal d'abord képp koo xam ne am nga fa problème Sénégal euh, na nga woote boo mënta woote say bokk nañu woote am nga occasion woote vingt quatre sur vingt quatre mooy numéro bi ci kaw am nga droit aussi woote heure yi nga xam ne mooy heure liggéey muy numéro spécialisé boo xam ne leen ko jox pour en cas de problème à l'étranger fexe leen ko jox seeni bokkit ñu téye ko te ma di leen rek digal képp koo xam nationalité américaine nga nekk bala ngaa dem Sénégal na nga téléphoné le département d'État expliquer la situation bi nga xam ne moo am Sénégal dictature ba fa makk Sall li def ak ni ñuy dóore nit ñi ak ni ñuy nit ñi ndaxam FBI xam na lépp FBI xam na lépp lépp xam na ko ndaxam sax xëy na ñoo leen di ci ëpp xam-xam ndax yàgg ngéen ci àll bi xamu leen nu mu demee te ca réew ma waaye laa FBI xam nañ lépp bu leen tiit bu leen ragal te it ma di leen xamal ne bala ngeen génn dëkk bi wala yéen ci dëkk bi yéen ci réew mi kenn ku nekk na nga téléphoné sa sénateur wax ko situation bi am senegal même boo demul Sénégal nanga woote nga woote sa congressman na nga woote ñi lay représenté ñëpp ci sa district na nga woote bureau maire ba nga bàyyi fa message woote bureau gouverneur bàyyi fa message su ko defee bu dajee bu dajee day gaaw a day gaaw a àgg White House day daar àgg sénateur yu mag yi day gaaw a siiw ndax ñoom xam nañ lépp xam nañ te US citizen loo wax loo wax américain duñ ko négligé daana ko gëstu scientifique li bala ñoo xam lu mu doon wala ciy dugg bépp daal encore yor passeport américain wala nga yor sa citizenship bu leen ko négligé ñi nekk Sénégal alkaati ay dof lañ jànguñu xamuñu loi internationale xamuñu les droits de l'homme mën na laa jàpp rey la wala ñu la posene la wala ñu jàpp la yàq la ndax réew la moo xam ne dafa dugg ci révolution ñoo ngi ci àll bi nag ami bokk Sénégal foog nu di fa dem te ñoom dañ lay tuuma xool lu mel ni siif siif nga tiim ko sama sa morom jullit lu toll ni siif jigéen nga di jullit wala nga dib citoyen wala ngay chrétien ak koo mën a doon dafa rafetul te gouvernement day taqale da lay tuuma gaañ la wala mu tuum la yàq sa alal moo tax ma di leen conseil surtout yéen yi nekk fii demagu leen woo leen stade département nga woo leen expliquer situation bi bu kenn jëlul téléphone dañuy war daa bari bàyyi leen fa message c'est obligé ñoom daañu law tontu wala ñu enregistrer sa message téye ko en tout cas daal li ma leen di xamal mooy am ngeen secours te am ngeen ku leen dimbali bëgg a dem Sénégal dem leen ragal police bu mu leen te dem ku fa am soxla di ko lijjanti demal mbir mi noonu la demee am ngeen ginnaaw parce que tooñu leen kenn réew mi yàqu yaxet bu ngeen génn réew mi nekk ci àll bi liggéey kon defe naa ne wóor leen a mën a ragal a dellu ci réew mi ngeen xam ne yéen ko moom en tout cas li ma leen digal def leen loolu association yi nekk ci sénégalais yi nekk ci biir réew yi kenn ku ci nekk maa ngi lay ñaan naga téléphoné c'est département bu dee France ak fu mën a doon fu ne te téléphone yi bari ñu xam li xew les organisations internationales li leen wóolu mel ne ONU Nations Unies xam nañ ko mais woote bi dafa baax waaw lu mel ne Euh, tribunal international bi nekk Hollande ni leen woo bu leen tàyyi jël leen téléphone yi woote benn immigré bu ne boo wootee White House dafa bàyyi message duñ jël mais da nga fa bàyyi message loolu lépp américain dañ koy soxla ay indice la ak nga aar sa bopp bala ngaa jóg réew maa ngi noonu waaw dañuy reye dañuy damme dañuy dóore Macky Sall est un dictateur farouche qui est prêt à liquider Sénégal li ci man li ci américains yi xam yéen xamu leen ko li ci américains yi xam xamu leen un quart ba ba tax nag bu leen ragal woo leen ambassade ba à tout moment bu ngeen gisee ku ni lottal itam ku ni lottal woote leen kon jàpp woote leen kon asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm jàmm rek lañ bëgg ci réew moomu yàlla na fa yàlla indi jàmm yàlla na fa yàlla indi jàmm Macky Sall yàlla na dem yàlla na dem te bakkan du rot Macky Sall yan na génn réew te bakkan du rot ñu ñaan wallu nag di ñaan wallu américain yi ñu ngi ñaan wallu américain yi dañ ci def seen loxo ndax askan wi sonn nañ Sénégal yi sonn nañ encore man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences yàlla nañ buur yàlla suturaal yàlla nañ buur yàlla suturaal te indi jàmm ci réew mi pisan loo pisan loo pisan loo jaa ngeen jëf